moo waral am ci ñoo xamante ni lu ñu jàng-jàng am garaat garaat toppuñ seen njàng mu métti moomee maanaam bàyyi nañ xel bu baax a baax a baax ñii di askan bi kenn nag jëmm a ngi boo xamante ni ku matt a roy la parce que roy da ngay roy ci lu baax muy professeur Daouda Ndiaye professeur njaay Ndiaye taxawaayam am na solo ndax duguleet muy def jëf yu nu mel gis nañ ko ci Masaalikul Jinaan machine yaag jumtuwaay yi nga xamante ni ne woon na ko fa mu am am solo lool macha allah ñu ne déet waaye gis nañ ci Covid bi ak les sénégal yi nga xam ne ils sont confrontés à des problèmes euh, énormes taxawaay bi mu ci def waaye gis nañ tamit ci ba fa mu ci banlieue bi taxawaay bi Pikine nag yeneen gox yoo xamante ni def na fa ay œuvres sociales dimbali leen te boole kook wax. xam nga am na ñoo xam ne dañoo jël seen làmmañ di ratatati di mbel mbeli moom nag ci acte ay ay œuvre lay def ay action yu leer nañ lay def ndax sax li koy gën a firndeel xoolal jamono ji dëkk bu sell bee di Touba Mbacke jumtuwaayu am solo yu mu fa yóbbu moo xam ay basan moo xam ay ay sijaada moo xam ay satala moo xam ay ay ay ay jumtuwaay euh, euh, lépp loo xam ne dañ koy yittewoo ci wàllum julli gi rawatina wàllum euh, mask yi tamit lim bu takku ak lépp lu jëm ci jumtuwaay mu jël ko euh, jébbal ko sang bu tedd bi ci loxo ko waa daayira mu xaddamatul xidma ci taxaw kilifa ga ñu jël ko rafetlu ko mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñëpp buñ ko multiplié par 16 millions de sénégalais yi moom professeur Daouda Ndiaye ma jàpp ne Sénégal day naat bu ñëpp defoon nañ parce que bëri na ñoo xam ne ñu ngi seen ruq ne mig yoral ëppale ko foofu sax li mu yore te defuñu ko kon wax jëf dafa fay wax jëf. dafa fay wax si yëpp laa da daan wax maa ngi xaar ba ëllëg rek jëf ñu ne wax moo fay moo moo moo ëpp doole jëf jëf dafa fay wax jëf dafa am solo tey loolu dafa nekk bàkku mouridisme ah. jëf wax léegi nga gaaw jëf professeur Daouda Ndiaye gàcce nga la ma ci liggéey bu am solo boobu ndax bu ñëpp mel leen yow Sénégal jàmbat li dina wàññeeku. ndax bari na ñoo xamante ni war nañoo mën a def ni yow jàppale askan bi dimbalante yow yaa ngi koy def di leen topp bu baax gis nañ ko yemale ko Touba fépp foo xam ne gis nga ne situation ma nga fa wala soxla nañ dimbal yaa ngi koy def te loolu nag dañ la ci ñaanal rek mu yokk parce que tamit lu waaye def lu baax lu ne rek da koy gis kon loolu vraiment lu am am solo la taxawaay la bu mucc ayib taxawaay bi ci inondation yi gis nañ ko ak au niveau de la banlieue ni nga askan bi moo xam Pikine moo xam Guédiawaye moo xam Mal Kër Massar gox yu ci bëri ci dans la banlieue dakaroise on a constaté on a observé les bon démarches ak les actions yi nga xamante ne def nga ko mënee nga ko au niveau de ces localités mu nekk lu am solo ndax dafa nekk loo xam ne doomu aadama amul lu dul ndimbal bu nekkee ci njàqare ci tolof tolof lenn rek moo koy sauver mooy ku ko taxawu te jullit bu nekk jullitay mbokkam te yow yaa ngi def liggéey boo xam ne bu ñëpp meloon ni yow bu ñëpp defoon ni yow bu ñëpp taxawoon ni nga taxawee njàmbat lu bëri boole njàmbat yu bëri daañu tuur ba jeex takk nekk ay booli xéwal kon bokk lii nekk na loo xam ne ñëpp ci war a inspiré wu ay œuvre yu am am solo gis nañ ko tamit ci Touba ak ni nga ko taxawee def ko ci Masaalikul Jinaan def ko ci kër kilifa diine def ko ci fu bëree bëri bëri te kanam rek la jëm professeur Daouda jërëjëf merci beaucoup pour ces actions et bonne continuation ñaan duñ la ñaanal nag ndax ku ko ku nekk lam def mooy ñaanal boppam dañ lay bàyyi ak yàlla parce que li ngay def nii acte bu baax la ne ko ñëpp def bàyyi wax ci bëri nag Sénégal dañoo bëri wax wax jee bëri nañuy jëf